Euh, diwaan bi nga xamante ni dañ koy tàmbali parewul te ñu bëgg ci benn boo xam ne dafay pare spécial yéen ñëpp ngeen jàpp ci dëkk yi ngeen teglante ko ni mu nekkee boobu ëllëgee ku taxawee ñu jël foofa continuer fas yéene continuer ko ku bàyyi rek dañ koy continuer ne yàlla nañ ko mottali ci jàmm ak salaam damay wax nag ne mboolem diwaan yi bàyyi juróom benn juróom dañ ñaari diwaan la waaye mat na juróom-ñett juróom-ñaar dañ koo dajale muy juróom-ñaari diwaan waaye bañ pare dafa am beneen diwaan boo xam ne moom la ëmbee diwaan yi muy maxsad yi bàyyi nag nee na euh, wóyam yi dafay yombal nit ki mu jaar ci yoonu dëgg wóyam yi day yombal nit ki mu am faydu boo xamante ni benn faydu melu ni moom tey bu ngeen ko dégloo bu soob yàlla da ngeen dégg loolu départ bi ban fañ leen dale mooy tey tey suurul wu suul yombal yombal xàggin xàggin ci yàlla nañ koy yombalee moom lañ tuddee kooku xam nga ko loolu kooku conducteur bi bàyyi mooy li wax noflaay noflaay noflaay ci xàgg ah, kooku mooy pays noflaay Ah, boo demee da ko fekk ma woy kuy sama cëri ba kon nag tey sul ci la ñuy dalee auzu billaahi a seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim a ah, abal qalbu illa an yakuna mutayyama xalifa xaraamin bi nabii muhayyama bëgg naa ñi xam ne dañoo jàng ah, bay ustaas ñuy am lu ñuy firiwaale ci biir ñu diggaale ko ndaxte arab dafa abitikoo yaaw mu tëkkalim day xam ne su ko dugalee ci wax ji mu diis mu jël wécce ko àll xam nga xal bii la waroon wax mu ne abba bañ na bu suma xol ngay wax nag doo xam ne xol ba rek sama xol bi bañ na ilaa an yàqoon la moom la mooy dafa nekk moo tey man di nekk jaam rek jaam bi xol bi daal moo lànk na moom jaam rek lay doon ci yonent bi ban yonent nag mooy rasul mooy numéro deux rasulullaay xalifa xaraamin mu taqoo mbëggeel bi ci nabi bi mu hayyaman muy kuy gëlëm xol bi daal li rek la bëgg moom la nangu génn génn génn moom daal nekk jaam rek taqoo mbëggeel ci nabi bi daal di gëlëm ci yonent bi sama xol bi nangu li mooy lii fii rek la xolab baay bi def ak fii la rawee ñëpp xam nga xaraam buñ ko waxee ci arab xaraam euh, luy cosaan bi du mbëggeel xëri mu mooy fayee ko fay ko kotu bor léegi nag xuramaawu buñ ko waxee bi maanaam léegi nag man damaa mel na ci ci ci yonent bi comme waajoo xam ne da nga koo yoreel bor heure ba jot nga war koo fay amoo loo ko fayee te du la baxal te du la yërëm nañ koy tiitee man noonu laa mel ci yonent bi soo bëggoon xam ni ma mel ci moom xooleen loolu tax moo tax ñoom dañuy jël dañuy jël loo mënta xool ñu waree la ko ci loo mën a xool xam nga loolu mën nañ ko xool moom man noonu laa mel ci yonent bi man mm-hmm. abitu bi layli jimi sahraana musidan mm-hmm. li sikri la si xattaaba bat an wa maxtama abitu damay fanaan man Ibrahima Niass bi layli jimi guddi gu mat bu la ko araab waxee mooy guddi goo xam ne guddi goo bët set mënoo nelaw nga ne big di ba big day fanaan naa guddi gu mat sëkk saxaraana maa ngi naaw ay nelaw mag ñoo ki firi fokk waaye xale boo leen waxee fokk tey duñ ko xam man de big damaa fokk xam nga luy fokk saalum saalum nga de xalaat war ngaa xam fokk yow xamuloo ko fokk mooy nga nelaw mënoo nga fanaan mënoo nelaw maanaam man dama dama sama bëgg dafa fokk biig ah waaw ñàkkaa nelaw rek mooy fokk munsidan maa ngay saamaawu di sikkiri la si ci tudduwaay yi nga xamante ni xattaaba tey na battan japaar o maxtaman ak ci moom xam-xam moom moom yëpp daf ko ci bidaayaam ci maxtamam moom laa fanaane waxtaan di ko wéy di ko wéy ba guddi gi jeex usaajilu fii wurqa layli wa jiirati mm. ni yaamun wa jëf ni kilma kalma bi maax na wax usaa julu maa ngi sottante ba fii ci guddi ga alwurqa pitax mu doom taal ma léegi sama guddi gi yëpp mbaam pitax mi ñu ngi sottante ba mooy lan ah dañoo ne pitax jooy seen doom ja xamoon ci galam yonent yàlla noog gi nga xam ne moom la gaa yi léeb noonu ñu ne seen doom ja daf ci dee woon pitax muy jooy ma la jooy ñoo xam waaye pitax daal moo xam boo moo xam toog ba guddi moom mu toll ci bànqaas ku ku ku ku mu ne ma ngay jooy bu sottee baag ma sotti baag bi maanaam bu sottee bu jooyee bu waxee wuy ma maanaam bu jooyee ma ma jooy ñu ne mel na ñaari jigéen ñoo xam ne dañoo dem ca teen ba ngeen dugal seen baag kenn ku ne teg paanam ñu génne te génne baag sottil kii génne baag sottil bi loolu mooy musaa jëlatu ah waaye sànniwante ay batt usaa jëlu fii lu war ko lay lii wa jiirati te fekk ba ma sama dëkkandoo yi jumla xaale yi ko ko firee te fekk ba ma sama dëkkandoo nii am ñu nga nelaw sama mbiri ne yëpp a ngay nelaw wa jëf nii sambari bët maa ngay walala di jooy kalma saane bi mel na ay gëccur nga xam nga gëccur nga moo tax baati wolof yooyu su fekkee ne mën na ko tegtal xale tey gëccur nga mooy rigoon xam nga boo demee ci saal ah, àll bi léegi ah bu dee ci lëkk bi dañ ko def rigole yoo ne pour ndox mi bañ taa tuur ci kër nga def ko rigole pour mu tuur ji fële bu dee ci àll bi nag ba nga xamante ni moom booba eh, ndox yombul dañuy def seng yoo xam ne dañuy def ay bërigo yoo xamante ñu sotti ci ndox am lu ñuy sagoo ko lu ñuy lu ñuy naane loolu mooy gëccur nga soo bëri yaa ngi xalale comme rigole boo kon nag rigole ko fi kalmasaan mi la ko rigole maxarama ndax bëgg yonent bi rek moo tax maa ngay wacca ca soo bëri yaa ngay sotti ay rongoñ rek ah da jooy rek unasimu dura nafsi fi sikri wasfi wa asin bi wasfin mu badri duran munasama unasimu maa ngee nos dura nafsi ori baadiya baat yu rafet yi mooy wax mel na bisi bu nekk ci tëggu euh, mbaar tëggu euh, fu may defaree or ba na may defaree baat euh, par bépp or ya jël defar bii defar bi rooflante nam jëlee baati arab yu rafet yi ku tëggalante moom lay niroog bijoutier boo xam ne mu nga defar baatu orient ñu ne ko wa yow bijoutier xam nga moo tax moom ñoom bijoutier lañ moo tax tëgg mi ci mi gën a fort mooy tëgg moo tax boo ne man tëgg léegi man de bàyyi ñes bu santoon ñes sax du ma ko gëm ndaxte daawuda kan mooy kan mooy kan mooy kan mooy bijoutier boobu du daawuda daawuda daawuda mooma nag wa alam na sun at la boos moom moo amoon lu ko neex defee ko ci kii nag kooku nag daawoo di yetu mooy xilaafatu dëgg-dëgg yàlla nag mooy ñoo xam ne ñoom moom moom lu ko neex su premier tey kat am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi ci pays bii naan man diw tëgg laag diw wuude laag diw jaam laa diw nangam di ko fii ku xam dugg fii rocci nañ sa loola roofal li nga xamante ne mooy melokaanu Ibrahima ma léttu Ibrahima lañ lañ la roofal mm. bu dee dëgg ah loo santoon santoo sant nañ ko fële moo tax ah naari gànnaar yi ñoom yooyu sax dañ ko soxla soxloon seen xaydara ji fële dañ ko sànni fële ah te xam nga lu xewoon ci marché bi te boo ko fi jaay si léegi doo ci am njëg da ko fi indi ah dañu war a xam marché bi bi jaay ci marché ah, ah ah te pourtant ñun buñ ko bëggoon mën nañ koo génne ba génne xamul ne loolu eh, mën nañ ko génne ci alxuraan de ah. xam nga nit ñi dafa naqari wax salaamun ala ali yaasina in yaasin ñaaseen in yaasin <laughs> yow danga ko soo waxee too xamoon boo demee ñi bind nag loolu lañ bind ñi nga xam ne xam nañ bi ñu bind biñ bind salaamun ala ali yaasina kon yaw xamuloo ne groupe boo xam ne wax nañ ko ci alquran xamuloo nga ne groupe boobu day tey lu mbokk waxuma ci dara xam nga suñ mag ñaa àggoon nañ ci foo xamante ni ñun ñu xamoon bu njëkk booba tëgg bu sa xarit tëgg sa doom bu amee xarit tëgg mu sol bu yére mu ne ko may ko may ko yére bi soo ko solee sa yére sa yaram dafay fut <laughs> dégg lan la mm. ndax biddaa rek waaw ndax biddaa rek loolu yëpp eh, eh, eh, mbiru yàlla la boo xam ne xufat jànn jannati ma makare ja àjjana dañ ko warale yu siboo siboo sibu nga dikk ne fii mooy àjjana yoo man de gannaaw fii la àjjana ne ko du ci dugg te foofu boo ci dugg doo dugg àjjana de <laughs> nit ku ñuul kii xam nga yàlla nit nit ñi xeebee nit ku ñuul nga dikk yàlla demul fenn fi ki ne man tey de maa ngi ci nit ku ñuul nit ku ñuul nit ñu ñuul ñi nit ñi xonk ne ah man de gannaaw moom ku ñuul la moom moom moom eh, eh dikkal yee yàlla xonqul weexul ñuulul di ah fu ko neex feeña mm-hmm. kon loo ci dikkee xool déglu rek fa iyyaaka wal ihraada an kulli suratin isaarum tamit sir wujjóot boo bëggee dara si sir wujjóot bul wax bul xool weex ñuul de bul xool gàtt ak soof de xoolal nag ka saf rek ka yàlla safoo rek nga safoo ca kon nag man de loolu laa dekk rek wala si lëf si fi sikri was fii wa ahsin yéemul ak rafet bi wasul badri melokaan weer wa ah. juran mu nekk de or boo mën a saban o weer woo xam ne bu nekk ay per xam nga or dafa rafet waaye or nag buñ ko yóbbee ci bisi ceebu mu tëgg ko nag def ko or or ne ko nag na mooy gën rafete kon nag su ma jëlee man yent bi niñ mën nañoo jël melokaanu yent rafet na lool waaye man ma Niass dama jël melokaan yi da ko def per par per per par per ba boo ko jàngee rek da ngay daal di bëgg yent moo tax boo jàngee xasidaay bàyyi ci dégg ko il faut nga am gël moo tax kon nag nañ jàng nañ jàngale tëggu ah ñu ne ko waaw sa ji mooy mu ne muhammadu miftaaxul futuhaati sayidi wa xaatima silka rusli xadman ma muhammadu kuñ sant la ismu ma fool kooka xam nga nit ñi xamuñ njool makka ak leen njool makka yaa leen gën mooy numéro ba waaye ji nekkoon fële ci kaw kaw waaye kuñ sant ki mooy ku jëf dara ku jëful man dañ ko dañ ko dañ kii ma xam nga gis nga yonent bi yonent ba ñu ñëw tagg ñoom innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq man dañ maa ebal pour ma mottali makaarimal axlaaq kooku kon koo de bu toon la jikko yi la dikk moom pour régler ko ndax jikko yi dañ ci biir lañ nekk kon booba rasul ban la te booba nag moom rasul boobu moom moo dikk pour defar foofu kii nag laa laay moo dikkee nag defar biti def leen lii bàyyi leen bu leen def bu leen def bu leen def leen booba nag moom la bàyyi ñax dagg te boobu kooku gàmmool mën la am gàmmu nit ñi nag mënuñ koo gàmmool xam moo tax gàmmu gàmmu te gàmmool damay gàmmu eh, eh, xamal ki gàmmool te dañ laaj gars yi ku bàyyi ñax di gàmmool uh-huh. Muhammadu mooy kan uh-huh. rasul laay mooy kan uh-huh. ah ah koo xam ne xomar sax mënu ko xam salli ala man omaro lam yajrihi wa suwaru min noorihi wa suwaru yàlla ne yàlla na nga def sàll ko xam ne sax ko yow ko xam nga ne maa ngi maa ngi koy gàmmool yow noo koy gàmmoolee balaa nga koy gàmmool da ko xam ko xam waaja nga nga roy ko ca da ngay gàmmoo ba xam fa gàmmoo fa mu teg euh, birigam ba nga dikk gàmmoo foofa booba ngay mën a gàmmoo de waaye foo gàmmoo te du fii moo tax da bàyyi na ah, waaw man damaa foo ne sax nañu ñëw fii ndax fi moom ay baykat fi nekk <laughs> waaye nag fii mooy gàmmu gu mag wax <laughs> dëgg de <laughs> ah fii mooy gàmmu gu mag gi gàmmu ko mag gi fii de xam nga léegi li tax ma bëgg lii nañ ko def boo xamante ni ku ñu gàmmoo gàmmu ko safadi ñu ne ko gii saful waaw téere bii ku déglu fi firi mii ku fi indi gàmmu ko safadi ñu ne gii saful xorom de ñun Muhammadun mooy kan ñu ne ko waaw Baye mooy kan mu ne Miftaahu Futahaati Futahaat yëpp Muhammad mi mooy seen caabi laa ilaa ndax mas ngeen dégg loolu xam nga léegi awalu fatu la awalu caabi la aaqlu caabi la saayiru caabi la baat ni caabi la ñoom ñeenti caabi yooyu yëpp benn caabi bi mooy seen caabi mën leen a ubbi ñu doo ko ubbi moo tax ñu ne ko xuruusul xaqaayiqi ne ko aynil maarif kum ki jiwul dootu jël ñu moo tax ñu ne huwa mooy awalum huwa mooy aqru huwa mooy saayiru huwa mooy baat na huwa booba nag mooy muhammadul muftaal mooy mooy mooy mooy kuñ sant ka mooy muftaal futaat yëpp ah alfaati lima xuliqa rek moo fi dikk rek moo tax ku ne suñ salaatul faati yi doo ko laal doo xubbee ku ma ko billaay ma la ko wax kii futaat yëpp kii mooy caabi yoo xam ne seetal man day ah, yore xuma trésor eh, eh, public ah, bi nga xamante ne mooy banque générale waaye benn caabi jël nga ko jox kenn ci muy tijji banque bi dafa am caabi numéro un caabi numéro de ah. caabi numéro 3 mm-hmm. caabi numéro 4 mm-hmm. caabi numéro 5 xam nga juróom duñ juróom mënuñu complot pour sàcc soo defee sa kàjjit 1 rocc ah. kii dikk na kàjjit 2 rocc kii kàjjit 3 ban del seek nag ba eh, eh, dégg nag léegi ko su ko defee nag ah keneen kii bi daal di ubbeeku nag ñu doo ko mën a jël nag li ñu jëli lañ soxla mm-hmm. buñ ko tëjaatee kenn du mën a wax ne diwoom gannaaw kenn du mën a gannaaw gannaaw su morom kii nag sama waajaam waaj sama waajo nag moo leen jàngal ni ñuy dencee banque ni ti ni ñuy bancaire bancaire dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mooy Mouhamadou mooy Mouhamad bi mooy bancaire mag miftaal futaati mooy sama sang man Ibrahima Niass ndaane ma wa qaatimu silku rusli ranga gi yóneen rasul yi rasul yi ki leen xadmu mooy kii ndax luy xadmu dañ foog ne diwa diwa njëkk diwa mujj ba ci kii mucc mujj du loolu de xam kan moy ki xanam bu ku dikk bëgg a dox ak yonent mo la cornet jox la mo moosal la debal yonent demal doxi sa soxla te xamuloo kene katu seta même yonent yi xamuñ muhammad mi nga xam ne moo jox yere ki la jox ki la jox yere bi xam ko de naata bu nga bo tu ñu gedd ki ni ah ki de bu la sel iblis la tax mu gedd lam am cër bu reuy mu dikk fekk tay cër bu reuy bi ñokk adam mu ne lu ñu li lu gatt li xam nga adam dafa ñuul du ko topp waaye kii nii waaye dama ko topp ah toppatee mu mu daal di am problème kon nag lii fi nekk de moom day waxaate ba sëkk rusli xat man moo nekk xat mu muqaddamante moom lañ jiital xam nga li tax moom risaala yëf yi xam nga buñ ne sayidul wujjóoti ne sayiduna muhammad da ngay ne ñaari sëy dafa am déedéet ka di nekkoon sang ca wujjóot ba di ko lugg wujjóotal bi moo wujjóot daal dikkee ba dikkee moo nekk seen sang di liggéeyal ah muy sayyidul awwalina wal axirina njël ma yaa ah, ah, ah, benn waay la mooy ki may takk man Ibrahima Niass kon nag moo nekk nag ah waqaati ma silka rusli xat man muy xat mu muqaddaman ñu ne ah baay yow niñ ko déggee nu mu demee mu ne bii ci Muhammad mii li ma doon wax léegi naala la amee kullul anbiya képp kuy anbiya ñi ngi amee maanaaloxum seen may seen may ya ñi ngi ko jëlee ci Muhammad mi kii nii ñu ne Muhammad yonent yëpp ñu ngi jëlee seen may ci moom nga ne moom bii ci sama waa ji Muhammad siinati la ñuy rafetale alxadraatu mboolem xadraat yi mboolem pays la leen taaral li nga xam waaye ji taaral na jataay bi kenn taaral jataay bi ki taaral jataay borom benn benn waay la moo taaral jataay moom waroon nañu xam ki taaral jataay bi mooy ki nga xam mooy Muhammad bii bii siinati adraatu pays boo dem xaaxóot laaxóot jabaroon ma la ko naaso ka tax ñu ne xaaxóot xaaxóot xamoo bu nit ñi xooloon tuuti day xool ñu ne waaw xaaxoon xadaru suri ak aar yàlla dina nekk ñaar yàlla dina nekk ci pays yàlla dina dugg ci néeg ñu naan fii la dugg fii mooy këram waaye yow te war nañoo xam kon ki borom borom xadara yi kii nag ci moom la seen adrati wa xir na nga ko respecté waxa sima na nga xam nga ma màggal la ñu wax fonk ko la wax waaye yow mën nga ko màggal respecté ko fonk ko loolu mooy kàddu gi loolu mooy firi mi gën a rafet kii nii na ko respecte nang ko fonk ah ñu ne ko waaw sobaa ji moom bàyyi ñes ñun mas ñoo dégg ko dëggee waa ji li de mu ne kaay déglu rek rasoolu ndaw lu ñu yebal la minal mawlaa bàyyi ko ci mawlaa ndax xàqu lañ ko tuddee mawlaa ban mawlaa ko xebal xàqu rasool ab xàq moo ko ebal wa aadamu aadamu lam kon bañ koy def bañ koy yónni yónni ci yónniti ga booba aadama amul mooy li nga may laaj rasulam xàq bi ka ko yónni fan la ak fan la départ yónnitam gi laaj naa ko képp ko dégg rasul xàq bi fan la départ yónniti gi ak ko yónni ah question la nañ ko <laughs> mu ngi noonu de <laughs> waaw de moom loo toppee fan yii dem naa waxal ma ko ma ne wax ma ci dara <laughs> maa yoo ko déggandoo <laughs> question la ni ñun ñëpp ko war a tontu <laughs> rasulun minal mawla wa aadama booba aadama la muy ku nekkul ne wax dëgg de foofu la nekk rasul xaq wa yabqa rasulan ma nga ne seen ga nag fi la nekk rasul laay bi nag. jugéde hmm. bële mooy resal xàq bi way hmm. yam xaaras mi ngi des ci risaala gi ba tey mi ngi dox risaala gi hmm. feeg yaram a ngi am ruuxu a ca wàcc rek risaala ga ngay dem moo tax fële ah moo tax ñu ne ko ku timtal fi adra waa bàyyi ñes mi ne ko yow de yàlla bu ci adra xàqi yaa ngay daw ci xàqaay ki te wax xàqaay ki xàmmiwuñ ليس المختار يدرك لا انتم ولا ملككم يو كور دو ملاك دو جيني ا آه، نيت كون نيت دي ينت نيت لي امول كولا تي خام ملاك جبريل ميكائيل اسرائيل اك سين خام خامي غودي اك سين دارجي اك سين جير كين خامل يوم مي وادي كين ما سوكو تاغي كين لي بي تاغ فاس كين كو ديك كو واخ تي كو زوف واي نين نيم طالبان ني نيو نور تابل سين بوب نين كين نين لو خامل ماتني سو خامل ما سو امول سو كو زوف سو كو ديفه نين ني دي ني في تك دي ku ci sa sëriñ mën a wax lii ni ñu koy nit amul kon nag mi ngi nii rasoolu minal mawla wa aadama lam yëkkul nga ne bàyyi mu ne wa yabqa mi ngi continuer def rasool ci risaala daa yoon faa mu asaman woo mu asaman mooy koo xam ne dañ xam nga boo déggee boo déggee lettre murtada bi nga bi nga wax ne bàyyi na ko waaj waaj nga xam ne moo doon ko waxanteeg bàyyi bàyyi na ko yonent yàlla Muhammad mu ngi fu nekk mu ne ko boo demee tey ah, képp ko dee si nga nu nekk ay milliards yi bakkan te roo ko dem ku dem ñu rob la da nga fekk yónni ci sa bàmmeel xam nga kon mu ngay dox dox risaala ko ba tey de waaye yëpp xaaral solo boo demee ci Buxaari yi kon nag Buxaari yi moo wax xam naa ñuy wax neen dañu fa moom ñun ab kii gis nga ñun dañ ñoo takk bii bon ñu bonoon bon koo xam li wax ñu ah soo fi yankane rek du loolu de ñun addis yonent bi dañu sukkandikoo ak alquran bi pen yonent baa ngay dox risaala gi daa iman bu fa nas'atuhu kantiyatul haqqi wax da oo lisaaka ataana qaasiman wa muqassama damaa bëgg a dégg ñu dégg li ñu wax arab fa nas'atuhu fam sosoo xee kantiyatul haqqi foofu la bàyyi ko moom kantiyatul moo tax kon kane kuntu kansan kooka xamoon ne yàlla wax wax jooju ka nekkoon ca kantiyatul haqqi ba nag moo ne kuntu kansan lan oraf nekk naa ca denc ba de te kenn xaw ma fa ahbabtu an oraf ma bëgg nag ku ma xam fa xalaxtu xalxal ma netaalu am netaal mooy kilise ba kon nag kilise ba fa biyee arafoon na nag kilise ba nag daal di génneen photo yi nag ñu ne kii kan la ne ah benn waay la de ah kii jigéen la di ah benn waay daan la fi xam waa ndax yaa ndax nit nit góor la wala jigéen mokk waa jooju na nga xam ne góor du jigéen uh-huh. kooku benn góor bi ñu nag bu bu bu ci beneen place moom doo nga mooy góor nag uh-huh. ñi fi des yëpp ay jigéen lañ kon nag kooku le moo nga sosoo ci kën siit ak foo la bàyyi ko ci ci ësël boobu uh-huh. fa ak wax doo moom doo nga fa nekkoon boobu nag wax doo amul koo fa gis wax doo ci kën siit ak ah kën siitul moo tax kën si ya saatu eh, asalaat abadaat xaqaayiq maratib maqaamaat foofu loolu dara du ci yàlla yàlla du ci yàlla du ci loolu du ci du mu dugg ci loolu donc yàlla te ñu xam nag li xaw li kën sie waxuma kën seetu la kën seetul xàq xàq fii la sama waaj waa ji may tagg foofu la bàyyi ko de moom mii ki may tagg foofu la bàyyi ko hmm. wax doo moom donc li saakal ya tax nag ataanaa ñëwal nañu xaasiman mooy séddale wa mu xasiman te moom lañuy ñuy séddoo seen nga mooy séddale te moom la ñu séddeeku maanaam lañ lañ kenn ku ne ba jëlee si cër moom mooy cër ya moom mooy séddale cër yi te mooy cëru cër yi man ndax man dafay buñ ne nañ teg ay saam ban saam saam saam fu saam fu mbàyyi ko du ci benn sa kon nag kan ka foo jëlee foo jëlee sa sa saamu yàpp bi àqale fu mu jëlee saabam bi du ci benn saab benn benn benn benn benn waaj hmm. ah, moom nag moo séddale te moom lañ séddoo xëyee hmm. am nañu koy firi nag moom mooy sédd mooy séddale moom lañ séddale moom la wax mu séddale déedéet hmm. moom la ñuy séddaloo moom la ñuy séddoo moom la ñuy séddoo mooy séddale moom la ñuy séddoo mooy séddale moom la ñuy séddoo ñun ñëpp nga cëroo ci ma cëroo ci kenn ku ne cëroo ci ñun ñëpp am ci kenn ku ne am sa wàll ci ci laax ci ci nar ci ci nag wi ñun ñëpp jot nañ kenn ku ko jot sawal ah dégg maa xam de ñu ne bàyyi yow rek li nga ubbee si bi ma suñu dégg ko wax sax mu ne kaay jeexal wu ma de fa aayu jëmi urusli aayu muhammadu fa aayu jëmi urusli mboolem kiimtaanu yonent yi aayu muhammadu kiimaan kiimtaanu yonent bi la moo jox noo na ko am. gaal gi nga xamante ni kenn mësu ko am ku ko jox xam nga noo xamul gaal de Ibrahima xam nga ne mu xam ñu ne gaal bu juddu fekk danga nga ma am ndamru buur boo xam ne moom mu àddina yëpp nga ñu jox la ay matériel ma nga duma ko xam nga ne amuloo Ibrahima amul doole jooju ku ko jox sans waaj nga xamante ni këram la yoro fanweeri nga xamante ni da ma mooy dem na ko référendum euh, unanimité yàlla yàlla yi. moom moom moom firaw na ànd ak firaw na kooku Moussa moo ko jox la lam lam daane firaw na xeet a wax ku ko jox saa waajee koo jox de Moussa ak kon Insa lam indi woon ci kiimaan naan nii que naa ba nga xam ne gañe na tey da nga am yoo xam ne ba mu juddoo keroog ba mu juddoo ne aataaneel kitaab waa léegi bébé bu judd ne jox nañ la téere ana téere ba waroon nañ ko wala dañu waroon bénk loolu ne ana téere bi waaye nit ñi duñ bàyyi xel loolu ana moom mooy jëmi téere bi man jëmi téere laa waaw kon ku ko jox loolu Mouhamad mi ndikk ci Màkka ñu ne ko Mouhamad xam nga Mouhamad Ahmad Mouhamad Ahmad Mouhamad ma dikkoon Màkka naan maay maay ne njool mag ku ko jox lam joxe ba mu matee njool mag ku ko jox sama waa ji moo ko jox fa ay jëmi urusli ay Mouhamad fa minu ci moom lay jógee ko hmm. idée yi ci moom lay delloo kullu shay'in bépp problème foo fi gis ca moom la bàyyi ko ca moom la jëlee bu amaaman dañ koo mat leen muwaahibu rabbul xarsi may borom xaras taa taa borom xaras bu la bëggoon may jàpp na jëlal taa moom lay may de doo am dara argent de poche moom la ah, ah looy lekk foofu ak lii والسرابي وهو ديني وديناني وجوادي wa بدت وهو خيرات إسان واو كن كوكو مو خمتا man de ñu ne ceebu ganaar Ibrahima da bëggoon ci bàyyi da bëgg ci bàyyi kay mos lekk ceebu ganaar mokk sama waaj waaj bàyyi attaay dañ ko booy ay attaay bàyyi mos naan attaay mais kay moom sama waaj rek ah bàyyi dafa maa ngi ànd tukki yaa ma ñem yàlla man nga ànd ak bàyyi tukki saa waay rek laa ànd tukki moo tax nag رافقني من كولك أمين فهو أمين الله لا أمينه رافقني أنا من من كولك الأمين كن يورك يوم بفني موي نجول مك déedéet ku ñu maa ngi moom ñoo ànd bàyyi ko kaw la ah foofu amin la moom la moom laa wóolu dégg nga laa amin man Ibrahima Niass dama nar mukk li ma xam fenn xam nga loolu dafa naqari dafa naqaree gëm mu ne laa amin xam na dégg naa nag ay firikat boo xam ne ci ne ko mag a mag mu ne waaw laa amin man du wax amin ma ne ko bàyyi wax loolu wax du wax amin de daf ne man du ma naax te ah maana yemoonu ak maana yemeenu damaa bëgg ñi xam ne nañ dugg ci téere bàyyi te seen la arab soriwul nañ xam ne baatam maana day firi nar na ak nar na ak wax na amin moom man du ma nar man Ibrahima Niass du ma fenn lu ma wax dëgg la maak maak amin ñoo ànd bàyyi koo kaw la wax na dëgg de pourtant li bàyyi ñu wax a ñu bu ñëwee ñun ñu bàyyi ko ñu bàyyi koo ne suñu kër dikk nañ jàng si fi ànd ak amin oh. donc amin ànd fi jóg fi de <laughs> man ngaa dem ànd ak moom dem la fit ak fula rek ak gën a xam rek waaye bu la neexee mën ngaa dem ba lam waxoon nga wax ko su fekkee doo ko wax ci dégg naa de da ko wax ci gis naa gi ngaas ah kon nag e, maa yi ne ko kan la ah mu ne muhammadun kuñ sant ki mm-hmm. fa minhu ilayhi kullu shay'in bépp mbir mu amaman mbir yëpp yëpp laa wax nag ak lu may goo mën a gis fu may nga bàyyi ko ci moom la bàyyi ko ci mu lay delluwaat moo tax wolof li ma wax ne am yàlla jox la mu ne yàlla na yàlla nangu ñooñu day wax nañ dëkk xam nga am te yow mi joxe xanaa yaay yàlla mu ne am na am yàlla jox la moom jël mu ne yàlla na yàlla nangu kon nag ki jël ak ki joxe yàlla jël yàlla joxe na yàlla nangu na boobu na ñoom dañ xam ko yàlla waaye waaji la kat sama waaji kat moo jaar ci diggante ba moo joxe de sama waajaa joxe sama waaj a jaar ci diggante bi de ñoom nag ñu fari yàlla joxe ñu ne waa baax na bàyyi naa la gannaaw mu ngi sama waaj xam nga moom lu ko ca neex tadde jo eh, féetale gën ko féetale waayam rek moo tax waxu dara mu ne man kay loolu sax moo ci dàqal waaw am yàlla jox la am na yàlla na yàlla nag mu ne baax na man kay gannaaw bàkku leen ma ci rek baax na kon eh, mooy déglekat bi sama waaj xabaar moom la Nasiirun mooy xupaatekat bi bu leen def lu bon ku ko ci def ñu def la lu bon moom la muqsitun ku maandu la sama waaj oo moom waa xaasimun mooy seetlekat bi mooy seetle boo loo jot moo la la am jawaadun ko tabe la kërimun ko am tiraanga la baa sutul kafi ku tàll tënk la mun imun xewlekat la juróom-ñetti melo ñuy kurtu balaaxa juróom-ñetti eh, melo bàyyi indi la ko takkal ko waayam ji ci benn ci benn benn wuy saa waa ji moo amee juróom benn mel kan yow ñu ne bàyyi ndax jar mën a déedéet mu xafaa moom la ñu xencu de boo déggee mu xafaa mooy koo xam ne ku xay ci tànkam nga topp xanaa xamuloo ne su la xëccoon nañ dem marché su la xëccoon nañ dem fu mu jëmul moo la ja moo dem moom la ñuy xencu woowoo moom nag mujtabaa léegi lañ ko jàng mooy mujtabaa kuñ seppi virus li yonent yëpp risa rasul yëpp dañ na ko yow nag yaa ma ci gën a kaay ittibaaw léegi lañ ko jàng ci ci ci kii ci jaayirman bi moom kii mooy mujtaba habibullah ilahil arsi kii mooy soppe borom aras xam nga ban xaras nag waaye kii mooy soppe borom xaras ak ah, xam nga lu tax xaras yi dañoo mat ay xaras xaras yooyu dañu dañu xam koo xam ne moo leen xaras moom moo mooy xuruusul xaqaayiqi ñu ne ko xaras sax ñu ne ko xuruus ay xaras yépp moom moo nekk di benn xaras bokk la mooy xarasu aras yi kon nag kii nag sama waa ji moom mooy habibu ilal harsi bat an ca tàmbali wa maxtaman ak ba mu jeexee yépp benn ras ah, xamul ne laaw xamul ñaari soppe kenn rek la sopp amul ñaari soppee amul ñetti soppee kenn kenn bëgg kenn koo xam ne bu yow boo dikkee mën laa jot ca laaw fexeel ba jot ca kooku nga xam moom la moom la bàyyi ñetti tagg soo jotee moo tax wala abdu àqan lu ma wax xam nga nii man xam naa ne am na ñu may déglu te fekk dégguñ dégguñ dégguñ bàyyi moom laay ñoom laay dimbalaale man man man bëgguma dama leen di dimbaliwaale buñ foog ne man damay waxee sama wax huwal abdu àqan moom mii huwa moom mooy kan mooy rasulaay mooy muhammad bi mooy bàyyi ñu tagg moom dong mooy jàmm rasulaay wala anaamu abidu abidulaay moom mooy jaamu ab moom mooy jaamu laay ñëpp ay jaamu la huwal abdu àqan wala anaamu abidu fa kulliyay yaa moxtaaru kulli la daal jël nekkal de man nag yaa moxtaar ba ma demee ba bàmmeel nekkal de xam nga fuy bàmmeel xanaa ba ci bi bi ñu def giri giri rafet yooyu foofu day yaakaar moom neex dugg sax yombul ah te xam yàlla bu ñu ma ko tëj man ah, yàlla bu ñu fi tëj bu ma demee ba dee waaw ba su ma demee ba dugg cee jadas fa kulliyay yaa moxtaaru kulli la daal jadas jadas laa wax de waxuma xabru bu ma demee ba nekk ci jaras nekkal demal tey nag boo déggoon tey waaqiam maa tey laa mujj a déglu ci ah man maa ngi nafar fi ne nii ah, sirul akbar bi waaqaatul waqaat boo ca demee da nga xam luy jaras léegi yow mii yaay ñun ñii lii mooy jaras ngela bu ma demee ba nekk bàmmeel bii nekkal de bàmmeel ba waaye waxoon ne bàmmeel nga xam dafa yor ay xar yoo xam nañ ko dañ koy xar dañoo gas ak nañu gas bay bëgg a dee fund ba bëgg a dee doo ko dugal ah foofu waxuma loolu de xam nga ne te tal ndaxte bàyyi def ne ujaawiru rabban waahiban mutafaddilan bi qabri maa ngi dëkk ak rabban waahiban mutafaddilan rëbb woo xamante ne rëbb la waahib la maykat la mutafaddilan kuñ ko bi qabri sama qabru waaw léegi fële defe nga ne mos loolu loolu wax foofu lañ ko ana qabru ba oh wallaay yi daal la xam nga lu ko def nag ñun dañu suleekul bàmmeel bi ndaxte bàyyi def ne man man kat hayatur moo sun kolaa wa isar sama dund yeb dama junj damay bisu waaye nag tafasur dañ ko ma firi de kañ mama salikal xabru bu sëra taa yu ngeen xamante ni ngeen bamel bobé boko ne bàmmeel bii boobee saalikal xabru xam nga saalika moom xaasa ak saalika laam leen boo di kaam xaru kitaab nga xam ne jang a jàng grammaire rax de le boo lu sori le kon kon kala waxoon bàmmeel nga xamanteni fa la nek kon nak bu ngeen demé ba suli bamel ba gay gay ku suli bamel bi nak ah waaye nag naari gànnaar yi moom amal xam ci ñoom ah mu ne ko bàyyi tuuba li man xablal mamaaki bax sa rek wa saxaadal ak waa na kuloon asarak misir mu ne tuuba texe li man ñeel koo xam ne bax sa rek suli na la yow bàyyi xam mamaati balaa moo dee te ba mu koy wéy booba ñoom ñaar ñu ngi dund ku la sulli balaa moo dee dana am texe wa saxaadal ak waan ba sulli nag wa saxaadal ak waan mu jël ba mu gis mu gis nekk teef yëpp ku leen tout asaraka muy sa jëfi sa jiixit sa jiixit mu ngi sa jiixitam ci ci ay akwaani ku def loola nana texe ci yow waaw ana ko def loola ci gars yi ku ko def ndax bëri na ah misiri ko xam ne saas gi xam nga man dama xam nga lu tax may indi yooyu man damaa xam ne aw ma xorom te ñàkk amu fulla amu fayda aw ma xaalis ndax aw ma xaalis te tuuti lool te bërki dee boo jaay de doom loo xam ne kenn xamu ko sàmm woo xamante ne kenn xamul su bëgg a wax fii e faut mu wut ay seede yi moo tax ma indi seede misir yi ay seede yi bàyyi seede yàlla yéede yooyu boobaa ngeen génn ci oustaz ngay jël nag li nga xamante ni moom laa soxla kon nag mi ngi noonu de kii mooy habibu rek ilaa yar si ban an wax tama ah wa abyadu yustasqal qamaamu bi wacci bi naara laylul jahli iskaana muslima kon xam maa ngi jeex foofu ñu daan xam wa ab yadu bari na niir weex maanaa wa ab yadu ku weex la moom sama waa ji dafa weex tal justas xaa dana ñaan ndox alxaama mu bi wut ci gis nga niir wi ñuy taal balaa mooy taw daf ne ko maama dama may lu ma jox suma lu ma tawal sama gaay moom niir wi su ko deful du taw moo tax na képp koo xamante ne ba ngaa tëbb say bi man laa def na niir def ñaanee ndox fa nga ko war a ñaanee doon nandal say taalibe de moom nag xam nga ne kii xam na fii ñu ñaane de a wa ab yadu ku weex laa yustasqal xamaamu bi ci bii ci sama waa ji de Muhammad naara la leeralee naara la leeree lay dul jeeli guddi gi réer iskaana ba nekkee mustama ba guddi gi réer lënd mi sama waa ji moo dikkee na làmp yana tay ñu gis dëgg gi nga xamante ni mooy xam kon nag asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ba subaak jàmm